jaajëf mbokk yi ñuy seetaan ci wasaare làmb mbokk yi nuyooti nañ leen am kontaan ak mbégte comme ni ñu leen koy defalee saa su ne saa su rek ñu leen di dégtal làmb fépp fu mu am ñu indil leen ko. tey ñu ngi fii ci Tiwaawan euh, ci dëkk yi nga xamante ni wër na ko. ci kër Baba Alima euh, ñëw seet si fi xale boo xamante ni mooy Saaku Ñaam bi Saku Ñaam bi nag xale la boo xamante ni dugg na ci làmb am na lu tax mu dugg ci def open press comme ni ma ko defee ci Aline Mbaye Nder bii weesu ma ñëwaat fi ngir dégtal leen xale bi nga xamante ne mooy Saku Ñaam bi waxoon naa leen ko ci biir wax nee naa leen wasaare làmb dafay nekk bépp xale boo xamante ni day jariñ làmb wala làmb am na ci moom yaakaar ëllëg ñu dégtal leen ko ba bu ëllëgee bu ñu leen wanee image dëmbam ak image yu tey ngeen xam ne xale bi kat vraiment bokk na ci lu ñu wane kaay bi laajte boo bëggee toogaay rafet da ngay laajte borom dëkk ba kàggu ki daa mel ni am na lu ñu jot a wax ci ñoom kilifa gi taxawel ni noo def. sant bu baax a baax. ñu am jàmm bu baax. Bolle saak production. Bolle Diouf Sakho waaw. wala yaa ngi ci làmb ba léegi. maa ngi ci làmb ba léegi làmb rek laay dund. taxaw tey boo ma doon expliquer góor gi mooy kan. góor gi mooy Sakho Ñambi. di nga mbër yëpp. ancien gloire yëpp ñuy wax saaku ñamb sa Tivaouane mbër la woon waaye saaku ñamb sa Tivaouane daan naa ko mosoo koo dégg boo déggee bàkku maam góor gi Njaay buy lim ba ci saaku ñamb Tivaouane danaa saaku ñamb Tivaouane mbër la woon saaku ñambi baa ngi nii kii moom lañ duppee suñu bopp ñun dereti mbër mooy daw suñu yaram bu ñu bëree mbër lañu suñu bëreewul mbër lañu moo tax say saaku ñamb numéro 2 bu waral bis bii ñu koy ñaanal yàlla ah mu jël Euh, lépp li nga xam ne neewoon na si maamam ji mu jël ko parce que maamam ji yaakaar naa ne Serigne Babacar si moo ko ñaanoon moo ko ñaanaloon. lii du lii du tricage de réalité la kii 100 kilos suuf la kenn daaw ko jàppale. 100 kilos suuf 100 kilos suuf. mooy jàpp da koy jàpp téye sëñ Babacar si jàppal saako jàpp ni ko yëkkat teg ko si mbagam dem dem ak moom bu jumaa yi teewoon ja géwél yi topp ko daar ko di tëgg waaw. li may wax du ma toog télé di wax loo xamante ni maa ngi dañ koy dégg naa kii lu tax mu wax loolu Serigne Babacar Sy moo ko ñaanaloon kii dafa daw ba daanu si toolu xare élection yi Serigne Cheikh euh, doon xëccoo ak Senghor moom mu doonoon koo xamante ni moom la ñëpp doon sóor si leen ko dóor bal police bi ko rey trois mois lam dof bal lañ ko door fii si nopp mu daanu police bi ko rey dans trois mois mu def di wër mbedd yeeg sën waa kii mooy saaku ñam moo tax tey bu nu yàlla dimbile ñu dem ba am rakk dem ba nekkoon saaku ñaam bi numéro 2 amaat sama rakk bu ñëw duggal si làmb mooy saaku ñaam bi numéro 2 moom moo jël tur boobu noonu. ah ñuy xamoon ne dëkk bi nag dëkk susaan la kii mooy l'enfant de Kër Baaba di rakk si saaku ñaam bi numéro 2 l'enfant kii mooy l'enfant de Kër Baaba. di rakk si saaku ñaam bi di mbër moo xamante ni ñëpp xam nañ ko kii moo dem moo dem moo dem Iba Mar toj ko waaw l'enfant mu ngi nii rakkale si saaku ñaam bi bii tey am bis ñii du ñu ragal kee mooy ama deux kee mooy buuru àndal kon dëkk bi dëkku làmb la kon tey làmb dafay war a dekki gisagoo dara nag si kanamtu tuuti nga xam li ma la wax fii mooy kër baaba alima waaw Malick Thiandoum xam na ko Lamine Samba xam na ko bi Bika Mbaye xam na ko Khadim Samb boo ko joxoon micro si góor gi tey di nga ba àdduna ba mu wax la ay jalooreem bàyyi ji li ñu ngi kontaan si yow di la nuyu di gis sa taxawaay gis fa nga jugee nag ñëw dakaar ba fii di topp lambu rek sa njàmbaar te ku woo nga ne ko amul problème doo laaj xaalis doo laaj dara bu la neexoon nag te yow la ñëpp di bu la neexoon fuuy comme ñeneen ñi waaye wax dëgg yàlla da ngaa sa bopp. yaa ngi dégg ñun nag ñun waa gox bi yëpp ñu ngi sa ginnaaw waaw ñun waa département bu Tivaouane duy dund làmb fasante na yow na gis nañ bis ñu tey yaa ngi fi woon ñun ci champion bu ñuy wax Aline bay Nder tey nga ñëwaat champion bu ndax Sakho Ndiamé numéro 2 kon ñi ngi ñaanal yàlla ku mel ne ñoom l'enfant seen bis ak nga ñëw teewaat ko incha allah ñu xaar mbër bi génn ñu continuer liggéey bi jaajëf Baye Djil yaay kan waaw l'enfant de Kër Baba la l'enfant de Kër Baba ñaata combat nga bëri waaw booy naa huit combat six victoires deux défaites six victoires deux défaites waaw kan ak kan daan daan naa euh, doomu sëgal daan caat limousine bu kay baax daan amaa bu rëbës waaw ñoo rek doy na. kan ak kan daan. waaw kii moo ma daan soxor kale moo ma daan. soxor kale waaw ak men ak building ak building bu Serekunda. building bu Serekunda. waaw fu ngeen bëree woon yaa ak building. building bëri nañ Thiès avant que naa commencé laa am si jaxate. waaw spécial. mu daan la waaw mu daan waaw. gis nga ko keroog combat bi mu naa ko keroog xalaat pour jël revanche. bëri waaw yow man ku ma dóor jox ma yar yàlla xam na ko. billaahi képp ku ma képp ku ma dóor di ma jox ngi dóor dóoraat ay deux dollars uh-huh. ah, kon baax na après ñu dugg ci. waaw incha allah amul ragal waaw. Sakho Ndiambé yow xoolal Serigne si mu àndal. Ndeysaan. xoolal la mu sol ca bopp ba. Ndeysaan xoolal ndomba yi. Ndeysaan xoolal baat bi. ka ànd ak moom xoolal jaasa mu yor. dugg leen ci biir dégtal leen la fi jot a xew ndeysaan ay ca làmba ngoog am na lu sëriñ si di génne open press waaye mu ngi mel ni tey la làmb tàggu gis nga waa kër Baba ñëpp a génn ànd ak saako ñàmbi ngir ànd ak moom ci bis bi nga xamante ne ci la jom yaay booy noo def. maa ngi fi rek. maa ngi am jam ngi am jàmm. sa doom di bëre nga ñëw ci open press bi ban yëg-yëg nga ci am. bi maa ngi koy ñaanal mu dugg ceeg jàmm génn ceeg jàmm yàlla defal leen jàmm yéen ñëpp leen ndam li gën ci yéen yàlla na ko yàlla defal ngeen fekkee. yàlla may leen wér ak guddi gi fan di leen sant rek yéen ñëpp ndax maa leen jur nii ngeen de Pape Baba yàlla na ngeen ko yàgg ànd di ko jëflante ba dund ba seen i njaboot yor leen ngeen màgget bi jàmm maa ngi leen di sant di leen gërëm sama xol sedd na guy. bi muy dugg ci bi muy dugg ci làmb bi mu ñëwee wax la ko lan nga ko ci conseil ak loo ko ci wax. dafa dugg ci làmb bi mu duggee ci làmb ji indi na fi juróom-ñeenti drapeau léegi ay magam ni ko da ngaa war a bàyyi lii te dem jaay muy jaay bitig ñu nangu port di jël portable mu dem ba yàgg mu gisul loolu day bëri. ñu ne ko kon nan la ñaanal ay magam ne ko nan la ñaanal yàlla defal na ndam may la ndam ku nekk léegi sa bëgg-bëgg bee boolu ñaanal ci ma di koy ñaanal rekk nag ak di leen ñaanal yàlla defal ko ndam. Moussa Sangal sama xol bëriwul wax Moussa Sangal si di jëm sama si di jëm mos koo def magam ay magam it baax nanu lool dëkk bi bépp maa ngi leen di gërëm gërëm ñëpp di leen gërëm yéen ñi di leen sant. ndax samay doom ngeen yal na yàlla may leen ndam yàlla yàggaleen leen fi may leen gudd gi fan ak wér gu yaram yàlla na ko yàlla def ñu fekkee sama xol sedd na de yàlla na ko yàlla may ndam. yaay Sakho ñaan bi dégg ngeen ko lu mu wax. yaay booy maa ngi lay. ma a ma ne maay bàjjanu maa bàjjanu paap paap maay bàjjanam maay bàjjanam yaayam mi la mu jëf ca kër ga. yàlla na ko yàlla fay bu ko yàlla fayee paap paap jël ndam li. bàjjan de mooy baay. mooy baay. te yàlla pa yaayam mi li mu jëf ca kër ga bu soobee yàlla bu ko yàlla fayee Pape Diouf mi dina jëm ndam yaru na am na teggin am na sutura xam nay bàjjanam xam nay xàmmee nay magam xàmmee na dayam xàmmee baay man daal li may ñaan ci kàttanu yàlla maa ngi ñaan ci yàlla yàlla na ko yàlla may ndam may leen ko yóon yéen ñëpp damaa wax a wax ba ma ñëwee nii yëgu ma woon bëri waaye ma dikkee yaay mi wax ma ko rek ma ne bu wóor na yàlla ni fan yi de musuma ko fekk waaye bëri bi Pape Baba mii xale bu yaru bi te am teggin bi leex dina tax ma xaar ko kon nag maa ngi ñaar ci kattanug yàlla yàlla na ko yàlla may ndam yàlla na ko yàlla may ndam may ko wér may leen ko yoon ñëpp xaaj leen Moussa Ba balaa gàtt fa nag deegu ñaaw dafa leen jàmm dafa ko mboolem bopp jul yàlla na ngeen jël ndam li yàlla na ngeen jël ndam li ci barke papaam moo doon ci maamam man Jaasaan laay jóge mbaayam ku ma saan sama papa ku ma saan dóor nga daanu sama papa ku ma saan dóor nga daanu Njaga Géey saako ñaam bi di sax di di baayam Aku Ñambi maamam la Njaga Géey maamam la ñoom ñëpp fu ma saan laal li daan ko yàlla na ko ndam loolee maam Saaku Ñambi daan am ak maamam Njaga Géey Njaasaan Saaku Ñambi te Tiwaawan yàlla na ko may doomi baay Saaku Ñambi man mi maa di jigéenam maa koy wàcc bu nga wax ni Saaku bu bëree mbër la su bëreewul mbër la bu bëree mbër la bu bëreewul mbër la ndax ay maamam dañuy bëree ba daan am ndam nang lan daan def mosuloo dem fenn laal li am na yàlla na leen ko yàlla defal. ñoo dundee bii si saako ñaambi bi muy def open press ñëpp ñëw génn nga def ba mu baax génn. xanaa kontaan rek sama rakk jëkkër lan ma sama borom kër ñoo bokk ndey ak baay ñi sama séeri yi baax may kontaan si ñoom baax a baax xale yaroo yaroo yaru di leen ñaanal yàlla lafa leen cat bu baax a baax yàlla may ñu ndam lu sedd guy ci barke Seydina Mohamed di ñaanal sunu yaay muy sunu goro Gamou Gueye lii lépp moom la kontaan nan di ñaanal dogo Diouf sama séeri koko di leen ñaanal ñoom ñëpp Pape Baba yal na ko yàlla may ndam lu sedd guy ba ngeen ñëwaat ñu koy féete ci barke Seydina Mohamed koo ci wax mu ne la dafa yaru yaru googu danga koy confirmé. bu baax sax loolu moo am du la nit ñi wax noon ay caaxaan dafa am xale yi yaru lan a yaru nag ñoom ñëpp yàlla moo leen bindee noon waaye ñuy kontaan nag di ko ñaanal la yàlla lafal ko cet ba bis ba incha allah. yaay booy ngi lay. maa ngi lay fay. maa ngi sant alhamdulilah. man yaama caam. yaay yaay madame la maire. man maay madame la maire Adja Mariama Caam siyaare ji woon Seydouna Mohamed mu jaar ci monsieur le maire Mamadou Diagne Sy Mbengue. ana monsieur le moo ngi Tiwaawan ñun ñoo def délégation bi ñoo toogal ko fii. <laughs> sa délégation def sa balaa bu macha allah ñëw ngir dooleel Moussa Lemay. lépp ngir dooleel Moussa Lemay rek parce que moo ñu ko jaral bi ñu àndeek moom ba léegi du sonn du taay lu ñu ko wax moo ngi ci. barki démb rek am nañ programme nii la def 500000 la fa def tey mu defaat 500000 kon ñun dañuy ñaan yàlla jàppale ko lépp li mu bëgg ci kër baaba yàlla defal ko jàmm. ñu ñuy xàccandoo di dóorandoo ci barke yonent bi ndax jaral nañu ko te ñun nag ma xamal la leen ñun Simalande te benn yoon la ñuy tooy ndax maire moo nu ko jaral. <laughs> élection locale yi mu ngi ñow monsieur sele maire da ngeen koy dénk li mu yoroon wala da ko koy yëkkati ci moom jox ko yeneen loxo. dañ koy dénk li mu yoroon ba mu am doole parce que moo ñu ko jaral. te moo ñu ko ji tamit. taxawaaye ci taxawaayu dëkk bi nan la ci taxaw. taxawaayu dëkk bi amoon nañ problème ndox. amoon nañ problème mu ndox loolu bu gàmmu Tiwaawan masaan jot wala tabaski jot dañuy am problème mu ndox dañuy root ay biron di ko denc pour réserver ko pour ëllëg mais bi mu ñëwee macha allah dëkk bi tracé na fi ay tuyau mu jaay ci biir mbedd yi kër yëpp am ndox ba ci sancaan yi ñëpp am ndox macha allah li ci mooy. suñu cent francs bi nga xam ne dañ koo jël mu ñuy liggéeyal dañ daan cotiser ay cinq cent cinq cent di ko fay léegi yàlla dogal na jëlal nañ ko en charge di ñu ko fayal en même temps nee na dina defar logement bi matériel bi ak yëpp ñëw na kon loolu dañ ko ci sant di ko sport bi bi tamit macha allah mi ngi ciy def li mu man lépp lu mu doon lu nekk mi ngi ciy def li mu man parce que lii tey ndam la ci ñun def nañ délégation ànd ak moom dem ci mairie bi Sadji Fallou am jon mu jox ñu enveloppe bu cent mille ñu ngi koy sant di ko gërëm di ñaan yàlla yàggal taxawaayam ci kanamu njaboot maire nu mu Mamadou jaañ si mbeng lañ koy wax. mu jiite. ci waawan. ndeysaan làmb ji lu làmb nu ngeen koy fas yéene waajee nga xamante ne yéen moom. ñun ñi ànd ak moom xanaa nag ñu ànd rek fu ñu taxaw ñu taxaw fa di ñaan yàlla suñu mbër mii tey am ndam ba ñu woo suñu maire Mamadou Diagne si mbéy mi kër Baba Alima mu teewal ñu fi ñu sargal ko mu leer ko ni ñun ñoo koy jàppale ci biir ak ci biti di ko jàppale ci saayar ak ci baati ndax moo ñu ko jaral nag. ndax kuy wut maire da ngay wut xale bu am jom bu ndaw bu am jomb bu bëgg dëkkam loolu lañu gis ci moom. jërëjëf maire faaw xam. du mën a ñàkk xam wóorul. soxna si noo def. maa ngi fi. tribunal la. Khady Fall. waaw. yi daa mel ni ci nga bokk. man maa ci ci délégation yi yi ci laa bokk. Hmm? bu maire. fii ci Kër Baaba. di sant maire di ko gërëm. di sant sama responsable bi Mariama Thiam. ñu ànd di liggéeyal maire rek ah ak ñi ñu àndal ñëpp jàppale maire mu jàppale suñu dëkk suñu xale yi nga moom lañu am te maire da leen a fonk faale leen rek moo waral suñu taxawaay yëpp jàppale leen rek maire du ñu bëgg soxla ci dëkk bi rek mi ngi ci amul leen loo xamante ne sànkam na ko lu ñu soxla rek mi ngi ci tey ci suba lañ fa dem yóbbu suñu doom suñu suñu suñu doomi ndijaay mu teral ko teraanga bu ne def na ko nag ci kër baaba bu nekk def na ko te bàyyeegul nag toujours mu suñu ginnaaw ba ci ba ci daayira maam jaara bi ñuy waajal sax mi ngi koy préparé pour ñëw ci ñu ngi koy sant di ko gërëm bu baax a baax a baax di sant Mory ak ak Bolle di suñu doomi di jaay jàpp ci dëkk bi nag moom lu ko waaye fekk ci dëkk bi danga ko cee fekk waaye ku jàppale dëkkam la bëgg dëkkam moo tax mu def lii. mu mel ni monsieur le maire tànqam luwul dëkk bi ci dara. wallaay tànqam luwul dara lépp lu ñu taxaw rek mi ngi ci. kon luñ taxaw rek mi ngi ci jàpp samay wax yéen waa dëkk bi yéen a ko. bi ñu ñoo ko wax di liggéey moom xam li muy li muy dund boolewu daraa ki wax waaw. ban genre maire la moom ban meer la ban façon maire. maire bu yaatu maire bu am lislaam maire maire bu toppatoo nit respecté nit moom mooy Diagne Sy am aja pa jili ziar naa la baax métun xule bu dóor dóoraat métun xule bu jeex na di bëggee waa parcelle yëpp di la bëggee suñu doomu ndey suñu xarit suñu soppee di bëggee suñu kër su carré di jaajëfal saaku ñambi ak doomu ndayam tey dañoo jugee Dakar ñëw fii xam te ne mooy tund Kajoor te xam Kajoor xam ne làmb fii la ko ndax man Médoune Xolé mi wax yow fii laa dëgg Médoune Xolé ku xamul dégg nga ko Médoune Xolé di doomi parcelle doomi parcelle ak bawal li olof Njaay naan ku juddu ci bisaab mag ji Dakar forox du la jaaxal. jeex na mu ngoog noonu la fa demee nag bàyyi ji. man am naa trois combats. am naa benn victoire benn défaite benn machine yi. kon maanaam lépp lu mbër di wuti ci làmb ñam nga bu ci nekk. ñam naa ko ñam naa bu ci nekk. victoire lu muy sax. non victoire neex trop macha allah. défaite lu muy sax défaite métti trop métti trop baa ji li. machine yi machine yi yaa ma gën a xam nga xamul kii mais bu saako sañoon boo dem di wuti ndam rek ngay am. ndax say sawaay c'est la famille dañ ma taxaw te dañ ma jàppale bu baax a baax a baax a baax ndax maa ngi mujjee bëre journée tafaaleer fii Tabala maa bëreeg booy waalo bu bës ko waaw xam nga mooy loolu wax dëgg yàlla ngeen waajalee saaku ñaam bi ci bis bi mu jëm saaku ñaam moom lépp lu ko war rek def na ko entraînement yi jaar na yoon contact yi jaar na yoon xam nga te gis nga tey yaay mi ni toog billaah yaay mi ngi ni toog te lii dafa jafe ci mbër ngay ñëw entraîné di def sa dernier réglage nii ñëw toog ndox si yaay say mag bàyyi seen liggéey yëpp say doomu ndey kooku xam nga ndeysaan dara desidul ci yow. lamb ji nu mu war a def ba génn ci kaw. non lamb ji wax dëgg yàlla moom li olof di wax rek teg mu ni teg bu leeree nga ni yow dafa gaaw te ne làmb moom yaa ma nga xam di biir wasin te gis naa ni jàmbaar ji nekk moom non gan gi mënu koo téye wax dëgg yàlla jàmbaar ji mënu koo téye waaw di bëggee doom parce que lépp mais gàdda doy ñu ngi koy ñaanal ndam bu baax a baax ci kaw Mama Lamine baa ji le amal jàmm doomu bi ñoo far kaay champion siyaaraat naa la delloo ziar grand alhamdulilah sant bu baax naa la keroog ci open press Aliou Mbaye Nder ma fekkaat ci saaku ñaam bi seen diggante lan la waa sunu diggante mooy saaku ñaam bi ginnaaw bi ñu sant yàlla juri si yonent bi sant suñu ñaari waajur di ñaanal suñu ñaari waajur yàlla xare leen aw si waaw sunu digganteeg saaku ñaam bi nag diggante dëkk ak dëkk la mais mel na ni du dëkk ak dëkk mel na ni ñoo bokk benn écrit bu ñuy nekk di bëre waaw di ko ñaanal rek nag yàlla may ko ndam si combat bi nii ndam lu seddu guy loolu rek lañ ko ñaan loolu rek lañ siy wax mu mel ni nit la nit nga koo xamante ni képp lu gi waa gox bi soxla rek wala lu ñu dëgmal rek da nga cee ànd ak ñoom. waa benn lañ rek mooy li ma la wax rek mooy digg diggante kër Tivaouane ak kër Baba benn la nee naa la nekkutul ay kii maanaam benn écurie la ñun ñoo bokk dara xajul suñu diggante benn la bu kee soxlaa dañuy dem si kii bu kii soxlaa ñu ñëw si kii. mais man it aussi bu ma soxla woon noonu lay demee ñun ñëpp. voilà di ko ñaanal rek combat bi muy dem na euh, jëm nii yàlla may ko si ndam lu sedd guy waaw merci. mbër noo def. ziar ba tudd. buru àndal. naan buru àndal. aa àndal. waaw. ñaata combat nga man maa doog ko premier combat le 19 bii ñëw incha waaw. kon Mburu bu R100. Ah, waaw. waaw xam naa ko nii rek. waaw moom bëral bi dinaa ko duma dinaa ko daan incha allah rabi. ah loolu dinañ ci ñëw. incha allah maa ngi woowaat babal ma gëm ñoo jàppale ma mooy loolu noonu di leen wax seen doom mi ngi waaj le 19 waaye war a dem Thiès pour pour taxawal fi drapeau Tivaouane drapeau Kër Baba waaw incha allah rabi le treize bi naa def open press mooy loolu noonu woo sama gaay yëpp incha allah. du mën a ñàkk champion. Eh, ziar naa la baax. sant yàlla bu baax. ñu ngi sant yàlla bu baax. Mbisaan John. Ndeysaan John waaw. Ndeysaan John daa mel ni champion. non wala waa dëkk bee ay mbëri ndaw rek. waaw. ñaata sorti nga def. am naa sept combats. victoire. cinq victoire. cinq victoire deux défaites. waaw loolu laa waaw. kan moo la daan. deux moom daan ak Ziggy maa daan sañ-sañ booy Serif Lo. Siteu bu Saloum. top 5 laa mujjee daan waaw. journal Sidi Diakhate bi maa ma ci daan dot 5. parce que yaa génn Dakar bëri. non non bëri gu ma Dakar. combat si Thiès waaw ren moom bëgg nañ ko incha allah rabi. waaw bëgg nañ ko bu baax. arène nationale ngay ñam stade Diop Iba Mar wala fan. waaw promoteur ñu ñuy contacter bi moom xam nga ñu ngi suñu wàccaay bu baax a baax a baax. waaw dimanche passé rek lañ ma yëy ñaari nag. Ah. waaw ana nag. mu kër ga. jox ma benn jël benn. waaw mais noonu la demee <laughs> bu ragal loolu. yow far. kaay. fekkee nañ la baa jiili moo def waaw mu war a bëre samedi daanaka samedi bi jot na ban préparation ko préparé ak nan la fas yéene bëree combat non fi toll nii lépp lu ci waroon ci combat bi def nañ ko ndax li war a yóbbu combat ba ainsi duñ ko wax ndax xam naa fa combat bi jàll ñu doog see mën a wax mais en tout cas état bu yoroon moom bokkam xam nañu carrément changement am na ndax man dama ne coach boo xam ne man ma du ma yoroon athlète soo mu doy ma moo tax ma bàyyi Dakar ñëw ba Tivaouane di moom donc am na yeneen morom mbërëm yoo xam ñoo ngi Dakar mais comme que moom moo gën a jàpp ma leen wax woon boog ay mbokkam gis nañu li changement am na manqué woon na woon na xeex defar nañ xeex bi bëre allah amoon na ko yoo xam loo xam ne nañ ko defar nañ ko dañuy ñaan nag bu bis baa suñu borom may ñu ndam rek ndam mooy suñu première adversaire bi muy bëreel xam nga weñ gi comme que weñ gi du jeex moom incha bi pare dañ ko indi peinture en ruine ndax mu jeex waaw comme que mooy weñ gi te ñu ñoo si tefes gi ñun ñoo ko ëpp vitamine bi nekk suñu yaram incha allah te am nañ yàqin lu ñu liggéey moom su combat bi diire moom mooy am problème waaw jërëjëf waay baay jëlee jërëjëf mbokk yi ñu seetaan ci wasaare làmb fépp fu ay mën nekk ci réew mi ak bitim réew ni ma leen ko daan defalee saa su ne ñu ngi tey fii Kër Baaba seet fi xale bi nga xamante ne champion la ci làmb làmb am nañ ci moom yaakaar ay mbokkam am nañ ci moom yaakaar ay njagañaaleem am nañ ci moom yaakaar ndax tey open press bi mu doon def wane na ko c'était la première fois ma dem jëli mbër open press gis yaayam toog ñaanal ko yëkkati ay kàddu seede jëmale ko ci doomam loolu nag day dalal xel ki nga xamante ni moom mooy athlète bi ginnaaw loolu dañu koy bàyyi mu nuyu mbokk internet mbokk internet bi muy saamu ñaam bi euh, wala saaku ñaam bi su ko defee mu nuy mbokk internet yi waxtaan ak ñoom waaj bis bi ngay jëm ci nan nga koy waajee ak nan nga fas yéene def ci wàllu mobilisation foo ci toll saaku maa ngi lay nuyu bu baax a baax. maaleykum salaam maa ngi leen di fay. waaw wasaare lamb yéen ñëpp di lu seen déplacement waaw fa ngeen jóge sori na lool tàng ni lool mais terewul da ngeen takk yëpp bàyyi ngeen jàppoon yëpp ñëw ci bis bi tey waaw ginnaaw di buñ passé loolu nag di sant sama mbokki mbër yi ñëpp ñëpp ñëpp waa Tivaouane waa Kër Baaba mobilisation bi xam nga Kër Bakar Kër Ndiob ak Njaxate fépp kër ñoom ñëpp maa ngi leen di sant parce que gis nga woote rek ñu wuy si la loolu dafa neex gis nga jigéen ñi dëkk bi mag ak ndaw pa mère ñëpp dañoo ñëw teew xam nga sama xol dafa sedd lool lool di sant sama géwël yi ñoom Tijaan ñoom Moor sama gars yi ñoom ñëpp waaw di ñaanal waa dëkk bi waa gis nga leen di leen ñaanal seen xool ñoo xam duñ bëgg yàlla nañu ko yàlla defal parce que man kontaan naa trop trop di ñaanal di fàtte tamit waa kii euh, sama waa équipe yi dóor dóoraat ak sama coach su kaare ak sama gars yi jugee ñoom ñëpp gis nga ba Dakar ñëw yéen fi defal ma lépp wéttali ma gis nga ngir bañ mu yaa ma gën a xam ak dëkkandoo yeeg ñoom ñëpp xam nga bis bi xam nga kontaan nañ lool lool préparation bi mooy loolu ñun pare nañu pour lépp lépp lépp moom bu kenn tiit parce que xool ku bëgg dem maa ngi leen di wax samedi yéen ñëpp muy góor mag ak ndaw génn sil da ngeen di dem gratuitement yéen ñëpp nag ku bëgg dem pare leen di sant nag ñëpp gi nga sama grand frère saaku ñoom ñëpp ki nga mënuma wax sax parce que ki ngay bëreel xam nga xam naa ko bu baax mais pare naa pour lépp ci lan nga xam ci moom waaw wax naan ma ci moom lu bëri te jàng naa ci moom lu bëri mbër moom mënoo ko préparé te jàngoo ci moom hmm. bis bu ndaje bu bis baa naa ko wan ni ko seetaan nga combat seetaan naa ko seetaan naa ko seetaanati ko hmm. di ko wax mu paree bu baax a baax lu mu liggéey doyul na ko xeeb ñu ci bëri nee nañ dafa mën a xeex dafa mën a xeex mais gis ngeen ma ku ma xool xam ne man du ma ragal ku ma xool xam ne man du ragal te bu samde incha allah waa Thiès nan xam kan mooy saaku ñoom bi hmm. waaw di jéeg gestu ci point fi ngay defee open press gis sa yaay toog sa wet loolu lan lay mën a def en tant que athlète waaw loolu moom du ma de xam nga sama yaram sax tuuti mu sotee ko ma gën a xam moo la dafa rëy xam nga préparé say mag say yaay ñoom ñëpp nga ñëw gestu si leen ñoom ñëpp toog loolu dafa naas di sant tamit xool waa kër Ndiaye Lo waa Cité Soko Sim xoolal dafa rëy Dakar ñoom ñëpp bàyyuma kenn Cambérène 2 chauffeur taxi a jaan ci mbéng monsieur le maire gis nga ni mu jàpp ci bis bi waaw defoon jox nañ cinq cent mille amul lu mu si jàppeewul gis nga mooy loolu noonu di ko nag dem incha bu samedi yàlla may ñu ndam ñu ñëw feetee fi ñun ñëpp ak dëkkandoo yi yaa am a xam ndam li dina yóbbu ah mais du yomb mais nu man di demee dinañ trayante ba jël ko fii la nga yor la ah li ma yor samay mbir la samay secret la moo ngi nii waaw. sama ñëw ci open press bi gis nga ànd ak benn waay ki nga àndal noonu mu yor ay laar yor ay bagage ak yu mel noonu nga xam ne daa bokk ci làmb lan moo la moom ak lan moo moom tey rôle am ci fii lan la fi woon. waaw gis nga kooku de gars yi ko indi yaa ma gën a xam moo loolu noonu suñuy bagage la bokk daal mu tudd. instant duñu wax dañuy bàyyi noonu mu tudd gën a xam nan bàyyi noonu rek nan bàyyi noonu mu sedd yaa ma gën a xam. wooteel wooteel waaw waaw wooteel. waaw woote bi moom gis nga comme ni ma ko waxee rek mobilisation bi samedi incha allah yéen ñëpp ngeen pare woo naa ñëpp kër ma kër ma yëpp bàyyiwuma kenn waa Dakar waa Kër Ndiallo waa Cambérène waa Yoff Nord Foire kër baaba nag moom dama ko jëleen njaxate gor moom kër njobbo mbëyeen minnam séeréer càlle minnam fépp laa woo di leen wan ne saako ñaam bi seen doom a ngi nii samedi maa xele waa Ndiassane Tivaouane Peulh sama kër ngi jaay ñoom leen waaw di nga xam ne samedi moom dem wane suñu bopp yëngal ko toj ko ca xar Cees ñaari gaar ñibbisiwaat kër baaba tiyaawoon kër baaba waaw ñu lay jaajëfal bu baax leen jaajëfal yéen waa Wassare Lamb kontaan nañ si yéen trop di remercier sama champion bi Aline Bender tam ñoo bokk même jour bu nii bëree ci Dakar di ko ñaanal yàlla may ko ndam ci kattan yàlla ak buuru àndal Ndiaye yaa a ko ndam mooy loolu ñun ñëpp ñoo bokk nday bokk baay waaw benn bopp jaajëf